Ah, waaw sëñ waa jëw. daa bokkoo ci xale yi carte. waaw yooyu soo war nga xam ne man affaire yooyu doxuma ci. da ah, lay dox bi lëmbe na ko <laughs> eh. daal kenn nangootu cee liggéey. ndax naar bi soo waxee ñu ne naar bi naar bi te xanaa xamuñu ñu tubaab yi dañoo bëgg dañoo bëgg suñu doom yi duñu am métier te métier mooy lépp. dara nag leen laa lay xamal gis nga nit ki niñ ko yara rek ca la naan rek lay màndi yow soo ma gisee xam ni man affaire de carte ak yooyu bëgg naa football nag jëm dama koy suivre te dama koy def. football moom bëgg nga ko moom. waaw mais moom ay carte moom yooyu moom di samay affaire ci rek. non yooyu ko def. naa fi na nagam loo a xale yëpp. non yooyu moom du ma ko def man ñeme waa def loolu sax. te ci ay 1 million. ay cinq cent mille waaye yow jaaxle woo yow Ousmane yooyu yëpp ay deuxième la rek nit ki moom li nga li déggoo li ma butéel la mu la mu tëj lay saa ma di xeeñ xaw ma sax niñ koy defee ah, waaw dama koy dégg nit ñi di ko wax rek yooyu samay affaire bu laal de dana màttam daal bu dugal sa loxo <laughs> moom sa xel na dal mm, moo gën de sa xel na dal moom ay <laughs> ay xanaa yëgoon ne tons dafa ñëw Ah. man kay man dama defe ne yii sax yërëm yi yaa yi la wala yooyu noonu ah. tos kañ la ñëw. man kay loolu tax ma ne waaw yow lan moo tax laajoo ma ko. man yëgu moo ko gisanteeguñu tos ñëw na. ñëwee ba tey amagu fi ñetti fan. daa doxo doxo doxo dox man sax damaa jommi ma. mais nag dañoo am ñaari attitude maa ngi yow soo tukkee ba ñëw. faw nga génn di dox di wuy téléphone xam nga nit ñi xam ni dem nga ñëw hmm. nga. mais toos moom. ah yaakaar naa yóbbante la yóbbu boobu. toos kon de indi na dara moom. gisaguma ko. ah wala gaaw ñu ñëw séddu ñu nag. gisaguma ko xanaa wax wax ju bari daal damay bëgg a rey démb ba tey. Eh, tukki day defar nit. da ngay tooñ toos rek mais xam nga ni sa feeku na rek defaroo yomal xiyaam ni ca ngoor baax la nag yomal xiyaam ca ngoor dama ko namu xam nga ca lay defaroo toos yaay moo tax foo mu bëgg di ko gis xaw rek nu mu meloon ak yàlla ma booleeg moom waaye li jël na ma li jël na ma de ah toos da mooy loolu toos da ngay comprendre nag da ngeen a yàgg nag comprendre kay alayhi salaam ah ngeen def yéen si jàmm ah yéen ngi toog ah waa leen góor waay yam na solo lool iya, ah eh. borom kër de warul jóg si wax ak maanaam ñaax ay njabootam ñu ngi si weeru koor te weeru koor wi ñu nekk dafa laaj di sellal di jubal la waaye dafa am weer woo xam ne sunu borom moo ko tànn jagleel ko jaamu yàlla jaamam yi ngir lii waaye di jaam mu fulal ko ko na ngeen di moytu lu baree bare bari lu si mel ne wàllu carte yeeg wàllu lidé yooyu yëpp day wàññi yooru koor ak di dugg lu sa yoon nekk ndax doomu jilit day jëf jëfu jilit di wax waxu jilit ngeen doxe noonu te wormaalal koor gi di sol lu yiw di ko doxee waaw ngeen baal ma àq nag ngeen baal ma àq bu baax a baax hmm. baax na maa ngi ñëw yegg kër imam su amee ko ma fiy seet rek nga wax ko na maa yegg kër imam te ñëw jërëjëf incha allah jërëjëf tas allah jërëjëf waaye sama <laughs> ah, moom yëg na ni tamit toos ñëw de yëg na ko kay ah yëg na ko toos day moom borom baax la. gis na ko toos day fi mais nag toos bëgg naa bëgg naa nag nga may defar ay ndog yu neex xam man moom mooy loolu. loolu de amul tool. waaw dama bëgg ay ndog yu neex comme sa loxo moom mooy loolu. waaye leen nag xamal naa la ko. Sina Ousmane. jamono ji naqari na de koor gi fi mu toll nii métti na ya de. yow waa yàlla baax na jigéen ñi ay jàmbaar lañu. dinañ ko gérer. ay jàmbaar lañ de. métti na torop gis nga sa nijaay dem Gàmbi toog fa. dërëm dërëm yónnee wu. xam naa na dina war a indi dalasi quoi seen xaalis boobu dinaa di yee de. ah yàlla baax na àdduna amul solo. àdduna amul solo ah baax na. mais nag tata xoole yaa nopp yaa nopp sama nijaay. yow mara nag de donc sa mel sa nijaay rek <laughs> ay àdduna solo amul solo. loolu yorul jabar de. sama nijaay noonu bu koy gis nag xoola xam naa li nga ko moom mën na yëpp. billaay baal di yàq dara bëgg nag. ah billaay dama ko bëgg. xool ni mu koy waxee dama ko bëgg billaay loolu la yàlla dugal dama ko bëgg. waaye moom xam nga la yàlla xam doy na. yàlla baax na dama ko nopp nag. dégg ngeen man na yàlla am ku ma bëggee nii. ni nga koy waxee dama ko nopp nii. su ma ko amul woon eh wàññi ko ci koor gi. <laughs> yow nar ngaa rey sama nijaay de <laughs> xam nga. loolu la xam moo tax muy def yi may def. mais nag moom dafa dafa teel a buruxlu rek ñëw dugg mais xam nga ne yow mii mooy loolu. bu la déggee nga xam. <laughs> mais tata yere mi xamna war na sonu mom su ñewé yeewal mako ko mu lek mu naan taxna de yalla yàlla barkel ko amin ya rabbi yalla barkel amna solo amin ay jog doxal dañu ko waaw ko rek ci bir gaay moy lolu man de taluma wo kenn na dama sonu lu leer la xamagum magum du wor ba ngon jot ngalé ku ci mbéd naan kay ndog lu leer la fu cinq heures jotee danga weññu ko nga yàlla si yàlla si noonu kii sim moom ni jaayama yam ay jabar de moom ay waxi kese yoon naka moom maa ngi nii rek gëj naa laa gis nakay tey yaa ngi jàmm yaa am jàmm waay sant naa la mais dama laa ngay gis waaw waaw waaw damaa génnoon ah dangaa génnoon waaw damaa génnoon waaw damaa émigré ji woon dama demoon immigration Ndiaye foo émigré ji woon baa dugg woon ci gaal yi <laughs> maa ngi woon Gambie maa ngi woon Gambie. <laughs> yaa yow ku la ko gis rek nga jëree. dama ñëw fii ci Fallou lu bëri. waaw Baye Sall. Baye Sall Baye Sall dama la koy laaj mu naa ma Ndiaye daa génn xam nga yooyu. dama dama voyagé dama. yaa jàmm rek sant yàlla. mais immigré fépp baax na nag. waaw Mourtade gii sax. bu ko xeeb. ah ku lay wax damaa xeeb Gambie. Ah, xëy boo ko ndax ñàkk a xeeb moo tax nga yàgg fa. <laughs> waaw mais ma boo duggee nga jox ko ba Baye Sall. Baye moo ko moom waaw. waaw ah, moo ko moom jox rek. <laughs> desul. Ndiaye. Eh. joxal ma ko Baye Zal. waaw maa ngi tourné mu tourné naa fi. incha allah ok tey may boy. dama góorgóor Bara moo fa nekk léegi. Fodé Bara. boy bii. saay saay dëgg moo nekk nii booy bii lañ daan jàpp fii ci kaso yi. muy muy sàcc di dugg ci kër yi lu ne mu def suppi na de. xanaa Baye Sall koy ñaan léegi xanaa. người <laughs> bi ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo <laughs> ndogo Hey, bye. Bye. يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان هلا